man waxuma ngir wax lépp mun maa wax lépp damaa bëgg wax rek ngeen seen i xol seen bopp ubbeeku su ko defee bu ngeen demee ñu mën ci dund ba déwén. xaaru Hira dafa Babacar dafa sa Sadiq dafa buddi ñax ma fa woon xool gis fukki pax ne fa fukk ak benn la waaye gisul meen ma fukk rek la gis. mu summi mbubam dag ko fukki fukki dag ne yonent bi ginaaw dañu rañaan kay teddi sama kaw dallo, ñu tedd ba yàgg mu xelmati menen pax jël loxom taf fekk am saamaana fa tedd jani saman mu koy ciof rek diko ciof diko ciof ba Ababacar ñenkeliko ko yonent bi daal di yew ne ko li nak mu ne ko fi dama ko fatte wona taf waye te limi wax lepp mi taf loxom de waye fi dama dem ba yag mu melni ni li fi ne ma xel ne am pax nga am pax la mat jël sama loxo taf ci waye li fi ne mi moy mooy lool aw yoon tamit baram, ko tegg sa loxo mu tegg loxom mu jaarale loxom baram fa nga jaaron da nga jaar fa genn kon bul deg seigne touba ni xara an ba rek nga japp ni xara dafa nek rek Lol la Yalla niko won la tahsan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu te wa ayyadahu bi jurudin lam tarawha wa ja'ala kalimata lazina kafaru sufla wa kalimatu allahi al hulya lol la tere bu màgg bi wax kon lolou bu ko señ bi waxee ci sahaba yooyu am nak rasulullah kon ñun ñi ñun kon ñu wara def waaw léegi ñun ñu wara def ñun Cheikh ibrahim neena so soo su fekkee da nga da nga xey xey mu teel nit dila top topp ngott ngott mu guddi. te fa nga jaar ngelaw jaar na fa ba say tànk amoo benn tegtal boo mën a tegtaloo pour dem pour jot kii nee na nooy def xam ngeen li ma bëgg wax nee nan nga war a def danga war a jàpp kon ci ñii nga xam ne ñoom la yàlla jox mbiram ndax yàlla moo taamu joxe mbiram bu ko neexoon du ko jox kenn mhm. ndax ba muy bind aadama kenn forcé wu ko malaaka yi doon jéem a réyu làmmiñ di rek moom da leen a yey ñu leen li ngeen xam maa leen ko jox yéen toog leen yéen inni jaahirun fil ardi waxul yeej xalu waxul jaxala jaahirun la wax faaxin la def foofu fil ardi xalifa dama ko bëgg a def ci suuf ñu ne ko attaque xalu fii ha man yufsidu fiiha da nga def ci suuf koo xam ne day day day yàqu suuf si dafay tuur deret ba yasfiku dima te ñun war na xam nu sax bi xam ni ñun ñu lay sàbbal kese bu yàlla bëggoon ko sàbbal lu bind aadama kon waaye waxal la ma aadama las ma